waaw li fi en fait euh, dañ ñëw pour cette session bi je pense que dañu une session extraordinaire pour euh, texte yi ci dialogue bi yëpp ñu mën ko voté et je pense que loolu mooy uti session bi actuellement dem nañu réunion conférence de président pour gagner agenda bi pour ñu xam la commission bi xam la plénière bi et puis nous jàll ci waxtaan bi

moment de respiration démocratique là, pour que sénégalais yi di wax li nekk seen bi xol ak li nekk seen bi xel moo ay couplé élection rationalisé loolu ay kàddu yu ñu war a noppi dégg si réew mi la ba tax na ñun d'accord ñu ci loi bi te incha allah lépp lu war a daañu ko taxaw pour voter contre. Hmm. Hmm. non kenn non piège. je pense que nous nous ñu nous nous fu nekk Nous ay mbokk sax Nous mais nous sommes xel Sénégalais Nous sommes des dem nous lu nous ko ay nous Nous ay warkat ñu que dans une république du acteur politique nous le monopole xam nous nous nous sommes nationale du Sénégal nous waxoon nous politiciens yi nous pas nous Nous moomuñu réew nous du nous nous am pour da waxtaan parce que dëkk dañ ko war waxtaanee et loolu moo tax ñu dem dialogue bi bu ñu demee dialogue bi nag waxtaan nañu dem ci réew moo indi tey président de neen du nekk candidat kon du président de la République mooy wax avenir réew mi ñun en tout cas taxu Sénégal da ñun on opposé à ce te daañu voté contre quoi ak lu mu mënti doon ak lu mu ñu mën a coûter daañu voté contre le texte. oh mais yooyu incha allah dina jàll parce que yooyu si dialogue dialogue bi la jógee ah, parrainage bi ñuy wàññi ñëpp d'accord nañ ci parquet financier bi génn ñëpp ñoo doon bi. tay buñu amé parquet financier nek lu am solo évolution la wonañ ci wonañ ko wonañ ko waxtaanee réforme code électoral bi nek lu am solo pour suñu démocratie dañ ci waxtaan et je pense que yob ay avancées démocratiques la ñu war djublu lu gaaw avant ñu dem ci élection présidentielle parce que bii pas Sénégal yi tan sen président en toute responsabilité. mais mm. mm. est-ce que loolu tam du beneen moyen de filtrer yenn candidats non non non dañ ne xam nga dañ ne buñ né parrainage né ak chiffre bi ñu parti yu magi buñ joggé ñu jëlé liñu jël parti yu ndaw duñ dara wala ay doublon lañu am motax ñu né buñ ñu defee parrainage ak les ak les maires et les présidents de département ak les députés tay xam nga taxaw amna 13 treize députés 14 députés euh am na ko PUR am ko Benno Bokk Yaakaar am na ko kon japp nga ni parti yu soxla soxla ñu parrainage kon dañuy bayé parrainage citoyen bi ak parti yëpp ba parler de pour que le maximum de ko pour donc avancez la galgal la. ah mais le Sénégal on est dans une république les élections coûtent des millions aux citoyens on peut se permettre de coûter candidat def def sa voix après nga des été non ça peut pas marcher comme ça dans un pays comme être président il faut avoir la représentativité et c'est un minimum je pense. merci beaucoup. xaaral ma pare sama. dërët dërët dërët liggéey leen ba baax. dindi